parce que nous leen a gëm donc légui nak li motax euh, Sonko jangé ci bala ñu sey ñew mais da ngay comprendre que ne kon tey ji bu PDS delluwaatee ak euh, euh, ak ak APR mais le grand perdant c'est PDS ah oui comment ah ça ah oui nous PDS man avons dit lu leen jaral ñu dem delloo ak APR mais il fallait pas le faire comment ça non il ne fallait pas le faire je m'explique allez-y Moustapha xam nga politique dafa am logique mhm. PDS dañ fi nekkon 2000 ba 2012 bi ñu bàyyi euh, nguur gi 2012 sénégalais yëpp leen mere woon. vrai ou faux mm-hmm. ñu ne dañoo yàq dëkk bi dañoo sàcc suñu xaalis dañoo def ñu jàpp Karim tëj ñëpp ne ñëpp tàccu nañu tëj Karim parce que dafa sàcc suñu xaalis ñi avancé di avancé di avancé waa kër Macky la ñëw gën leen a doy waar. ñu mm-hmm. fàtte waa PDS. PDS dem ba commencé di cofeel ci Sénégal ñu leen dugalaat suñu xol ñenn ñi. Mm-hmm. mu dem bokk ji ci intercoalition ñu fal leen ay député. waa kër Macky daanu nañ ñu ne wa ñu Macky dañu saccu ñu xaaliss ñu yàq dëkk bi ñoo taxat taxate dëkk bi yow mi nga xamantene yow play yi nga defoon nit ñi pensé nañ ko bu mu commencé cicatriser nga dem andi jeex ki ñuy doog a hmm comprendre nga li ma la wax ah, j'essaie de comprendre <laughs> yow li nga def yow li nga def ak li nga jité nit ñi dem nañ ba ba ba commencé légui lépp toléré nañ ko mhm. intégrer waat leen ngeen dugg ci biir parce que fii nguur boo doog a wàcc nit ñi dañ lay tam dëmm lu ne di nga ko dégg c'est vrai léegi yéen ngeen bénéficier boobu noonu ci durée bi ngeen am avantage boobu ñii daanu ñu leen di ji ñu nekk ngeen dem ànd ak ñoom alliance ne da ngay dem ànd ak ñoom dem wuti jiwaat pouvoir bi ñu leen di xool ci benn maillot ci benn club ci benn équipe. mais kooku mm. c'est une boo xam ne PDS waru ko woon def mënoon na ànd ak ku nekk ba mu des APR ci ci opposition bi. léegi PDS bu àndut teg APR. Euh, déjà ñom Kumba Gaajo ñi dañu wóolu seen doole ba ne ñoom euh, seen bannière lañuy démé mhm. té xamna xam ñom ñoy imposer les règles du jeu les bu ànd mhm. ak APR ku muy àndal Moustapha. non mais opposition bi amna ñu bari ñoo xam ne mënoon na ak comme ñan. non mais par exemple amna bu intercoalition bi mu nekkoon yewi Askan bi amna yenen parti yo xamantene PDS mënoon dem andak ak ñoom. mais yow sank yaa ko wax euh, c'est la famille libérale. quoi mais mais loolu la wax dama ne ñom ñom gis-gis boobu la am. voilà te sommes bu euh, ak APR jamono du ak APR nous loolu en tant que responsable ñom dañuy gis né famille libérale mais affaire libérale socialiste jaayatul xam nga li hmm. ce n'est plus un produit qui alléchant quoi attire loolu. Hmm. fi kan fi socialiste la théoriser famille sociale dama un direct. ngeen am formation politique jamono daf ko war hmm. li bu ngeen koy toggaat ubbi leen ko ku bëgg a dugg dugg ngeen liggéey ngeen jël affaire doctrine ak euh, courant de pensée yooyu ngeen teg ko nële mais fekk yéen a ngi cramponné wu ci benn affaire ne non non ñun dañuy nek ci suñu socialisme bi dañuy nek suñu libéralisme bi fin leen dernière. mais il faut savoir aussi euh, même sax fek euh, ñu ëpp opposés Sénégalais parce que lool la élection yi passé mhm. woné wan leen ginnaaw euh, ñii di APR amna na aussi avantage bo xamné APR amna ko ñom ils ont réussi vraiment maye li nga xamné mo nek le territoire national Puis, en 12 ans yi nga xamné ne ñu ko nek si.

te li nga xamante ne moo di PDS dafa nekkoon ci donte parti bi dooleem taxu koo demee noonu. Mm. mais am na benn benn benn benn ingéniosité politique boo xamante ni il faut nga nangul ko PDS. Mm-hmm. xam nga am na lu ñu tuddee stratégie du caméléon. voilà boobu kii daf ko réussir réussiroon dem si yàlla Amath Dansokho. Mm. parce que boo xoolee Amath Dansokho en 1993. Mm. dafa jàppaloon Abdou Diouf mu falu. bu Abdou Diouf falo mu dugg ak ñoom si mu paate ñoom ñëpp ñu daal di dugg. bu ñu demee 93 94 95. Amath daal di daal di claqué port yi. pourquoi mm. parce que nee na position yi mu doon jël arrangé wul Diouf Diouf na ko fii mënoo fay nekk di wax mbaa nga muy opposé wu. daal di génn dem bi Amath génnee dem en mille Amath bokk ci ñuy falaat Abdoulaye Wade. Mm. yaa ngi comprendre. 2000 mm-hmm. Amath moo fal Abdoulaye Wade en 2012 bi Abdoulaye Wade di di di daanu Macky Sall di ñëw Amath bokkaat nañu falaat Macky Sall. Mm. loolu la stratégie d' adaptation di camion boo xamante ne yow da ngay da da ngay da da ngay ànd ak situation bu ñëw da ngay ànd ak moom dem. Mm-hmm. mais kooku tey jii noonu mu doon def ba si noonu léegi loolu mënatul am. parce que léegi nit ñi nit ñi nit ñi nit la ak transhumance bi nga xam ne transhumance dañ ko doon tuddé mm. jóge fi dem fële jóge fi dem fële ñëw jóge fi dem fële ñëw mais bu fekkenté ne tey PDS da fi nekkoon ngeen traverser désert bi. Mm-hmm. pendant 12 longues années mu metti loolu si yeen mm. ngeen daj lu nekk ak APR. ngeen def lu nekk et puis da ngeen di jox benn idée nit ñi ne comme quoi kat parce que ñoom ñaar ñoo àndoon ba ñuy attaqué juge mm-hmm. ñoom ñoo dugaloon mbir mi ñoom ak ñoom ab Mbow ak waa waa PDS yi. Mm-hmm. ñoo dugaloon ne juge dañ leen a corrompre ak nangam ak nangam ak nangam. Mm. ba ñuy dàq Mimi Touré ci assemblée nationale ñoom ñaar la woon moo tax ma ne la yàgg nañoo ngoro dañuy doog a sëy rek. Mm. waaye PDS ak APR yàgg nañoo ngoro ngoro gi nag moo siwul woon. Mm. dañ ko doon nëbb waa seen mbokk Pastef yi naa leen génnuñu waaye bañ demee ba jamono tollu fenn fi. est-ce que le nekkutoon arnaque ah, bu ngand bi ah, Pastef ak ah, PDS Mboko. non mais Bobu, Bobu intercoalition la won euh, intercoalition wa euh, bon ben concept bi ñu wax plan Déthié Fall ak euh. bon c'est vrai qu'il a fait ses résultats nag. parce que mo taxoon ñu am ben nombre bu ñu am. ci assemblée nationale mais ak lo ci mënta gis rek côté bobu mom man dama japp ne PDS waru won and ak APR. ñom ñi and ak ñom dinañ ne ki limu wax ne ki dafa jabaate ñu ñu bok suñu famille libérale war a retrouvaille mais PDS limu daj ak limu and parce que APR bi muy andal tay ñi ban APR la. APR bu Macky Sall la àndal beneen ngal la bi Amadou Ba daw naa ko moom. ñeneen ñi fa am base génn nañ dem seen yoon Abdou Karim Sall génnul. Mhm. mooy kan mooy borom mbaaw. Mhm. nga génne kii Cheikh Issa Sall génnul mooy borom mbuur euh, Maguette Sène bu Malicounda génnul. Mhm. waa ak ah kan del xaar fa fan ñu génn maa ko doon wax fii la dernière fois xam nga lu tax ñuy génn ku nekk da ngay bañ sa base ñu récupérer ko. yóbbu ko assemblée nationale te yow doo dem. li lan moy récupérer sa base mais yóbbu ci département bi ne demal nga xeexi ji mhm. ñu dóor ci département bi fekk campagne nga si département am nombre bo xam dañ koy récupérer ñoom yóbbu ko au niveau national mu jallale len député c'est vrai léegi kenn du ko nangu léegi ku nekk da ngay demal sa liste li nga am fofu nga dajalé ko ak li nga dajalé Sénégal am pile fort si dugg bir assemblée nationale mhm. gars dañuy calculer mhm. motax ñom ñoom ñu am base ñëpp bir benno ñi ngi récupérer wa waaye léegi bennoo bu ñu am base ñu génné dem lan moy déssati benno lu fay déssati déjà Pikine Abdou Karim nee na leen doo doona doonatul maak yéen Mbour rek déjà am ngeen fa euh, lu ñu koy waxee Thiès rek am ngeen fa ñaar ñu dem mooy Malicounda ak Mbour lan mooy desati bennoo foofu te foofu ay doole lañ fa amoon léegi léegi lu fay desati kon hmm. ça pose problème moo tax ma ne ban bennoo la moo ànd ak PDS te bu ñu moytul dinañ am seen surprise su àddina parce que nag bi paas xam nga lu tax ma wax la loolu mooy mm-hmm. bi paas bu ñu leen dóoree xam nga lu muy doon day mel ni nga yebal sa doom ñu dóor ko nga dajale sa doom sa taaw ak sa jarbaata ñëw dem ñu dóor leen duma leen koñ ba dootoo leen fa génn waxati dem nañ présidentielle ñu dóor leen billaay bi ba bu ñu defee ay mbooloo ak mbootaay dem ñu boole leen dóor dootuñu waxati ci dëkk bi. Mhm, mhm. pare nga ñu <laughs> ñu dem si <laughs> non toi vraiment tu